soo bëggee abonné ci chaîne mag bii di académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche lépp yemb su boobaa dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane Tuubaa boole na leen Mbàkke Kajoor boole na leen histoire boole na leen te loolu euh, ni nga ko waxee bëgg nañu lu mel ni buy am ñu koy wax nit ñi di ko teewlu kon sëñ ñi ngi leen nuyu baax derefet lu baax na sunu kilifa yi noo àndal ñu jóge guy mbind ci sëriñ bi sëriñ Moustapha nag ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi ci ànd ak wér di siyaare bu baax sëriñ Cheikh Mbacke mu sëñ Abdou Aziz Baare mi ngi nii toog waaye ànd nag rakam sëriñ Sidi Ahmed Mbacke moom sëñ Abdou Aziz Baare premier adjoint et maire de Touba sur le côté administratif. Euh, di siyaare bu baax sëñ Khadim Mbacke moom sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar ñu ngi koy nuyu bu baax waaye du nuyu bu baax. sëñ Abdou Khader Mbacke mu sëñ Jili ñu ngi ko nuyu moom monsieur Seydi Mokhtar waaye nuyu baax sëriñ Cheikh sëriñ Abdou Samad Mbacke ñu ngi koy siyaare ba du ko nuyu bokk délégation bi sëriñ Cheikh Abdou Samad mu soxna Loota waaye ñu baax na sëñ Abdou Lahad Diop ci délégation la bokk di seetu sëñ Baara waaye ñu sëriñ Cheikh Ndiaye mi nga xam ne ku xamoon Cheikh Seydi Mokhtar xam nga ko. Euh, di siyaare baax sunu jëwriñ Alaaji Fall ndax moom la Cheikh Sidi Moxtaar woon topp dañ ci gannaawam kere bi sëñ Xaadim Caam ne lawee ñu ngi koy siyaare bu baax moo nu jiite noonu taalibi sëñ Baara yi féeti fii ci Ndakaaru waaye du ñu baax nag sëñ Baara Seen bokk na délégation bi moom it tubarkàlla ak njabooti fédération Mounayri Bunyan gépp nga xam ne tubarkàlla ñoom ñëpp ñëw nañu mbaa ñu jiite seen yi ñëw nañu waaye xam ngeen ni ànd nag suñuy jigéen soxna Kiné Sarr ma moom soxna Ami Mbakke moom Serigne Baara ànd ak soxna Roqaye Dieye waaye Rose Ndiaye moom seriñ Baara ñu ngi koy nuyu bu baax lii mooy délégation bi nga xam ne jógee na ci Serigne Moustapha jaar ci eh, Serigne bi ñu teew ci jataay bi waaye bala damaa jox kàddu gi rek jëwriñ maa ngi lay siyaar bu baax te rafet délégation sama doomu ndey eh, monsieur le ministre Dame Diop di sama xarit di kenn ci man. meilleure formation professionnelle nekk responsable département APR bu Diourbel dafay yónn Mara Diop son attaché de cabinet di kenn ci nun ak Serigne Modou Mbacké chargé de com du chef de cabinet du président monsieur Mame Mbaye Niang ak Bassirou Diaw président conseil communal bu Ndoulo ñii la waxoon dañuy jottali ñu dégg leen yëf yee xat waaye incha bu buñ ci waree tabbat rek dañ ci tab bi ndax ñi ne àndal ñëpp ñii sëriñ si sëñ Moustapha yónni kenn ku mu ci yónnoo rek mat mat nga délégation. di sant sëriñ Sidi Gueye mi nga xam ne moo taxawal bis bi euh, te wala fii dañu wax ne ku yokkut yaa wàññi wante ku ne xam na ne moom yokk na ku ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu defal ko ndimbal defal ko tawfiix ci barkeb sëriñ Touba barkeb Seex Aadama di nuyu mbokki bi yépp di leen sant. ci turu sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy xalifa Seex Aadama ak sëriñ Souleymane mi nga xam ne mooy xalifa Seex baabu ak njaboot gi yépp di leen ñaanal yàlla coono yi def ndax fii ñëw fi yombut coono yi def ba ñëw fi yàlla na ko suñ borom def muy tànki njëggal ak yërmande ci ñun eh, eh, di sant ñëpp wante cant gi ñu ciy jiital njabootuk sëriñ Sidi Moxtaar bi ndax bu sëriñ Moussa tànnoon kenn rekk ca kër ga ka gën a tuuti it yabal ko fi dañuy doy sëkk day doy njabootu Cheikh sëkk ndax Cheikh dafa jaay dafa dafa jaayante ak sëriñ tuubaa amatul bopp ci boppam dara kon buñ koy defal dara tudde ko njabootuk sëriñ Touba ku fa jóge woon ca kër ga ka gën a tuuti bu bokkut ca askan wa it dañuy doy sëkk ndax loolu rekk moo ñu boole ak ñoom kon ñoo ngi koy ñoo ngi ñaanal Serigne Moussa yàlla dëgëral ko euh, euh, njaboot gi mu fi yabal yàlla sàmm leen te aar leen ci barkeb sëriñ Touba di wax ay kàddu yu gàtt rekk euh, sëriñ Touba ak Cheikh Adama li Abdoulaye Diop wax léegi rek loolu sëriñ tuubaa ku bind awalu man amana bi wa taabaani wa baayaani minal dina aadama gi ki ma njëkk ki ma njëkk a gëm njëkk maa topp njëkk a jaayanteeg man mooy aadama gi loolu nag lim wax léegi ne sëriñ Touba moo ko wax loolu dégg naa ko ci làmmiñu sëriñ mu Moussa mu ne sëriñ Touba ku ko wax ne ko sunu borom la mu defoon rek la defaat inna allaha stafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamina suriyatan bahduha min baadu wallahu samiun alim dal ne ko suñ borom lam defoon rek la def moo tax sama yoon wi it ba ma ci njëkkee am ku tudd aadama gi laa xam ne fi ma bëgg mu àgg fa danaa fa àgg kon seex aadama ànd gi mu ànd ak sëriñ Touba sëriñ Touba moo ko sàkku moo jóge mbaabu joo moo jóge Mbàkke Kajoor dem fekk ko mbaabu ànd ak moom jëm Ndar am lu mu fa doon wuti bi ñuy dem ci yoon wi am na lu mu bind jox ko ne ko def ko ci sa poste bu ko xool ndax booba xam na ne fa ñuy jaar ci wàlli yu lañuy jaar te booba Maamoor Anta Sali mii seen wayjur mi ngi woon ci yoonu xaadir mu bañ mu dem mu won ko loo xam ne dana gis leneen lu dul moom mu bind aw kayit jox ko ne ko def ko ci sa poos te bu ko xool seexaadama fab këyit bi def ci poosam aw bayit la bayit wa mi ngi ci jaawartu jaawartu am na ñaari bayit yu ci nekk yoo xam ne ñoo mag xaside gi da dégg ci jasaawu sakkoor sëriñ Musaa Ka di wax ne kitaabu rabbi kaane lii wa kuntu lahu bi bihi sakkantu moom la waxoon keroog ba muy patamtu bayit wi lay max xasida ak jaawartu wante ba mu àndeek ak Seex bind aw kayit jox ko ne ko def ko ci sa poste bu ko xool bañ demee dal kër As Camara ne ko dañoo bëgg fu ñu fanaan As kamara daf ko ne man benn néeg laa yor te ci lay tëdd ak sama soxna te duma ko jox kenn di tëdd bitti xanaa waañ wi moo fi des bu ngeen ci mënee tëdd Seex Aadama ne ko kii sama sëriña sama doomi sëriña mën naa ko ko buubal mu tëdd ci man ma tëdd ci bitti mu buubal ko néeg bi sëriñ Tuubaa tëdd ci néeg bi Seex Aadama tëdd ci bitti bi ñu xëyee as kamara di leen jox ñuy ndékki mu laaj leen lu ngeen di wuti ñu bari ñu ngi naan ndar lañ jëmoon wante booba sëriñ Tuubaa gànnaar la jëmoon sëriñ Tuubaa wax as lam lam fay wuti loola jaruta wax lam fa doon dox yi te booba it àddina moo baaxewoo ay aada rek wante li ko as kamara di wax ak li sëriñ Touba di tontu ci Seex Aadama li muy tontuloo Seex Aadama wane na ne kon lam fa doon wuti àddina day laaj sabablu rek wante loola euh, du du dëgg-dëgg bi ko ko as kamara waxee mu daal ne ko man de nooy wute ji loolu jaaxal na ma ndax yigle bi ma tëddee sunu boroom dafa ma xamal ne leer gi nekkoon ci deret arab yi ñu di ko donnante ba mu ñëw di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak leer gi nekkoon ci alxuraan sunu boroom dafa ma xamal ne nocci naa ko def ko ci kooku fanaan ci sa waa ci sa waañ wi sëriñ Tuubaa ne Seex génneel kayit wi mu génn kayit wi fekk mu bind ca nusi ali nuura lisaana wal kitaab asmaana xidmati la daa kitaab kon euh, sëriñ tubaab foofu la jaar ak Cheikh Adama ba mu ko laajee téeméeri dërëm yi it ni ko kii waxee léegi ba ñu delloo fekk am na lu ko aas kamara laaj ba ñu delloo te Serigne Touba laaj ko téeméeri dërëm yi ba mu ñëwaatee ndar di ko di ndax du ca yoon woowa la fa des daa dellu siwaat di wut téeméeri dërëm yi ba sàmbalaw bi ñëwee weexale ko nag yooyu ak yim jaay yépp weexale ko ko ba mu doon téeméeri dërëm yi ba mu koy ñaanal dafa tibb suuf rek ne barke sëriñ Bàmba tofli ci suuf si jox ko ne ko demal nga sangoo ko aska aska sàmbalaw bi dem sangoo ko bi mu ko sangoo ci suba sa tubaab bi woo ko ne ko sama bànneexu bakkan moo ma xiiroon ci ne naa la jàpp tëj la nangu kan kantungub jolof sama bànneex boobu ma xiiroon ci loolu xiiraat na ma ci ne naa la delloowaat jolof ak li ko wër lépp mu daal di jël xaalis boobu indil ko sëriñ tuubaa bi mu ko nee jëy Serigne Touba daan ne ko xaalis bi wax ak moom mu ne ko foo jëlee xaalis bi mu ne ko sàmbalaw bee ma ko weexale mu ne ko sàmbalaw bi amut lu lew alali jàmbur la dajale demal nga wuti lu lew indil ma ko Cheikh Adama jóg di dem mu ne ko demal nga jox ko aas kamara bañ fa demee warlu loon nañ ko téeméeri dërëm te moom mën naa lekk alal jooju te nga dem wutali ma alal ju lew ca la dem jox aas kamara bi mu duggee ci kër gi Serigne Moussa nee na ma aas kamara garaam bu rek la doon sol te du ci jiital tubéy ci biir doonoon wàlli yu wexat nee na bi mu ko séenee rek am na lu mu ko wax loola mënee su ko wax ci mbooloo Cheikh Adama ne ko téeméeri dërëm yi laa la doon indil nee na dafa taseek moom dal di koy këf daw duggaat ci biir néeg ba ci la Cheikh Cheikh Adama doog a ñëw nag dem ci seex mu baabu wax ko ko ma way juróom dégg seen waxtaan wax ak ñoom ba mu wut téeméeri dërëm jox Cheikh Adama jël téeméeri dërëm yoro ñëw ànd ak moom moom it boobale jébbal sëriñ Touba boppam sëriñ Touba dénk leen ñoom ñaar ñëpp ki fekk maamam baaxit it mu doyloo baaxuk maamam googu ba jàpp ne maamam moom daf caa war di barkeelu rek jéemuta mel ne moom jéematu xam ne yàlla tëjut buntam yi yàlla mi fi nekkoon di def li mu doon def moo ko fi moo ko fi doon def te Serigne Touba def na li mu def ba noppi te daraam du yàqu te moo waxoon ne samay mbir lu mujj ñëw ëpp la wéy ca mbóot yi nga xam loola teg foofu sa tànk xool la sa maam ya doon jëf nga di ko jëf ku ko ci def man ay seexaadama yu baree bari wala yu ko gën yu ko ëpp mën naa am ay seex mu baabu yu baree bari yu ko ëpp yu ko gën mën naa kon nañ xool ca ñooña ñu roy leen te topp leen te yoon waleen Serigne Touba tegoon ñu ñu bañ koo yàq